mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Dakar asalaamaaleykum suma doomu ndey Abass Fall léegi nee na élection législative yi nee na waa ji bojo bojo boobu dañ ko dóoro dóoro dóor non ma ne ko déet Abass da ngay rafetal wax ji rek koo dóor mën na fayu wante koo dumma moom day toog rek te gëm yàlla dañ kaa dumma dumma dumma ba mu xam ne ni lu yàlla santaane mooy dem julli ji kon nag asalaamaaleykum mbokk yi la woon fa woon ba woon rek ginnaaw ba ñu nuyoo la conférence des leaders nuyu suñu responsable le camarade xalifa Sall président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi di nuyu bépp leader ci conférence boobu di nuyu la grande coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay ne leen mbokk yi man mbir bi lu mu ci xaw a jaaxal rek mooy daf ma def ay ree xam ngeen mbokk yi ku leen sànni xeer ngeen fayu wante ku leen sànni xotti siddéem ngeen faxas Macky lu mu def nii di ay yeewi askan wi liste national bi du bokk day fooyee xelam moo tax yamatuñu ak Macky Sall ci est-ce que dañuy bokk ci élection am day parce que dañuy bokk ci élection wala élection du am da wax bi leer ay di la di di di raay wax ci di raay wax ci di masla ba ñu ñuy jéem a maasaale duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg pesum kanam borom a fajal boppam suñu doomu ndey Ousmane Sonko yàgg na leen ko wax neneen leen moo na waa ji moom lii rek la xam il na comprend que le rapport de force lii balaa may dee ñuy teg seen xaw ma ay police xaw ma yan fii la woon fii rek la woon biig rek mars 2021 yéen ak ñun la woon xamante nañu bu baax a baax a baax waaw bu baax a baax kon nag mbokk yi président Habib Sy wax na ko ma amaat nu ma neneen nu ma koy waxee ci gàttal Macky sàll ak ñi mu àndal lu ñu wax nee nañu ñoom ci seen xalaat bu gàtt daanaka Sénégal mën na dem coupe du monde FIFA validé équipe Sénégal wante onze titulaire rek onze partants mooy am onze remplaçants yi mën na ñàkk loolu ban FIFA mooy validé équipe boobu fan la am est-ce que mas ngeen gis coupe d'Afrique kaaf taxaw ne équipe mën na bokk ci élection wante soxlawoo ay partant ay remplaçant rek nga soxla da ngay indi vingt deux joueurs yu mët yu mën a bokk coupe du monde FIFA validé wala nga indi vingt deux joueurs yóbbu coupe d'Afrique mu mët kaaf validé Macky Sall nag nee na boobu arrangé wu ko mu neex la dina la arrangé mu naqari la dina la arrangé parce que foofu la ñu toll ak Macky Sall mbokk yi nag ngeen may ma wax ci waajooju ku mu àndal mooy Antoine ñàkk jom boobu dañu ne wax ji sax duñ ko rafetal Antoine ci boppam il doit partir Antoine il dégage à partir de maintenant on exige la démission et comme il n'est pas capable de démissionner on exige de Macky Sall qu'il amène une personne responsable une personne équitable pour organiser des élections. Parce que Antoine Diom, Antoine Nyaka Diom, il est à lui tout seul un symbole vivant de l'instabilité qui peut régner au Sénégal. Nous ne devons pas accepter que Antoine Nyaka Diom de organiser élection ici. Parce que nak nga nekk ministre de l'intérieur. Am nga sax droit am ko andal. Wante da ngay mettre les formes. C'est la raison pour laquelle comme Antoine Diom nee na moom ñàkk jom bu mu nekkee dérangé wu ko te ñun ñàkk jom bu Antoine ñàkk jom nekkee def ñu dérangé nous exigeons le départ à partir de maintenant de Antoine ñàkk jom ma bëgg a wax ci leer du waxu politicien Macky Sall na nga dégg bu baax lu ñu lay wax Antoine Diome du fi organiser élection comme da nga créé benn problème nous allons te rajouter un autre problème mu nekk deux problèmes et à partir de maintenant nous avons décidé à parti de maintenant que suñu problème yi dañ koy lijjanti ci mbedd bi parce que nag comme non loolu rek dama ne ci mbedd bi rek gars ci mbedd bi rek ci mbedd bi rek dama ne man Barthélémy Diaz dama fas campagne dama fas yéenewul bokk ci élection te ànduma ci ak Ousmane Sonko tête de liste nationale te ànduma si ak Aïda Mbodj jigéen bu mën góor ànduma si avec tous ces grands responsables le ministre Habib Sy tous ces grands responsables qui font la fierté de la coalition Yewwi Askan Wi dëkk bi Macky Sall moomu ko. mbokk yi nag waxoon naa leen ci élection euh, locale yi waxoon naa leen élection locale yi mooy premier tour élection présidentielle bu 2024 parce que troisième mandat dañ koy tere Sénégal. waa ji nee na troisième mandat xamul est-ce que c'est oui c'est non ñun nee nañu xam nañ bu baax que c'est non. c'est non nag par force comme c'est non par force deuxième tour élection présidentielle bu 2024 mooy nekk législative yi wala dañ ko kay bàccal ci ci kees yi wala ñu bàcc ko ko ci mbedd bi maa ngi leen di gërëm leen mbokk yi jërë ngeen jëf